FM, Forum Musique. salaamaaleykum rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi. li ci gën a fees Adama Barrow yegg si ci Ndakaaru sànq bi mi di jotee moom président Gambie nag tàmbali fi tukki ñetti fan di visite officielle ñuy xaar mu daal di xaatim rek ay accord jëm ci wàllu coopération militaire kaaraangeek koom-koom ak yu ni mel ba tax na sax bu 13 jote jotee ca palais de la république moom ak président Macky Sall dinañ jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci benn conférence de presse wàllu yoon ki fi nekkoon premier ministre Abdoul mbay tey nag doon na jàkkaarloo ak àttekat bi. jëm rek ci liñ koy tuumaal di faux et usage de faux jëm ci euh, sëyam euh, ak soxnaam su njëkk moom nag Abdou Mbaye euh, mbir mi dañ ko dàq ba ñaar fukki fan ci weeru avril nee na nag moom plaidoyer yooyu dana tax ñu xam dëgg gi mu fi mu féete wante nag tere nan ko mu génn réew mi fii ak ñuy egg foofu. jëm ci lu jëm ci xeex ñàkk karange gi ci réew mi nag nguur ak Sénégal dal jël na ci ay matukaay yu am solo bokk na ci rek renforcer sécurité bi ci biir réew mi démb leen ko xamle ci conseil des ministres ba tax na sax ministre bi ñu dénk wàllu karange gi ak biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo feddali na ko fële ca Tëngéej di leen ci dellusiwaat ba tax na sax ñu am ci gan di Alioune Seck moom mooy directeur planification ak suivi évaluation ca ASP di agence sécurité de proximité sëñ bi Seck Serigne dina wax tamit euh, jëm rek ci campagne njaayum gerte mi ni mu demee nag neexul dara Cheikh Diop mi jiite CNTS FC ma ngi ko xamle démb ba mi dajee ak liggéeykat yu nekk ca Sonacos bu Diourbel ñaawlu na tamit li ni jël gerte gi di ko jaay bitim réew te waa réewum Sénégal soxla ko moom nag mi ngi ci wàccaayu élection représentativité syndicale yi mbokk yi su ngeen loo ñu yaatal xibaar yi. yi ñu ngi leen di nuyu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu tàmbalee ko rek ak ni leen ko waxee Adama Barrow di njiitu réewum Gambie moom nag amal na tukki bu njëkk fii ci réewum Sénégal comme nam ko waxee ban ko fale fale ca Gambie sànq la yegg si nag bi mu di jotee fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor président Macky Sall moo ko gàttandu ànd ak moom dem ci hôtel King Fahd Palace buñ fa jógee danañ dem ca palais de la République ngir rek amal fa conférence de presse bu ñu digg bëccëg yi ak maam Biram Diouf incha allah ñu wax ci wàllu yoon ki fi nekkoon premier ministre fii ci Sénégal di Abdoul mbay tey nag jàkkaarloo woon nag juge tribunal départemental bu Ndakaaru jëm rek ci liñ kay tuumaal maanaam mbiram faux et usage de faux jëm ci certificat mariage ak tamit ab sëy bu mu doon seq ak soxna am su njëkk moom nag euh, tere nan ko rek mu génn réew mi ndax mbir mi doon ko dàq ba ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñu dëgmal moom Abdoul Mbaye jiite parti bi di acte nee na dana tax rek dëgg gi leer incha allah loolu daal di xamle xëy na balaa xibaar yee jeex dinañ ci dellusi ak Al Ba ñu dem fële ca géejawaay coow la ba léegi wureegul jëm rek ci yorinu marché bu bees ba tax na rek. ba léegi ñoom politiciens yi ñu ngi ciy yëkkati ay kàddu ka ca mujj di Abdou Khafour Touré moom nag euh, jàpp na rek euh, njiitu réew mi mu daal di rek signé bi nga xamante ni daal day rek jubbanti jëm ci découpage administratif euh, ba nemmeek woon ci atum 1996 ñu déglu ko ci micro suñu correspondant ca banlieue bi Salif Sow ak Asmalik Diop. depuis 96 bi commune ci dëkk Caaroy Kaw existé ba léegi Djiddah Caaroy Kaw depuis 1996 musul percevoir benn centime taxe fii ci marché bi. ville de Guédiawaye moo ko mës a recevoir moo ko mës a percevoir depuis 96 donc gisuma lan moo fi changé tey pour que ñu bugg a créer coow bi bugg a jaxase xelu askan wi pour ne marché bi je pense que maire ñi koy xëccoo marché bi musuñu gis. parce que Djiddah Thiaroye Kaw ak Nimzaat problème bi mooy fii quartier régulier la lotissé suñu papa yi seen kayit kër ñoom ñoo ko moom fële quartier irrégulier la su loolu mooy dëgg bi ville la fan nga gis tey bidonville bu ñëw in eh, nga xam ne nii dañuy ñëw rek daaj tabax naka la ñu mën a amee primauté ci quartier yoo xam ne nii dañ ko lotissé loolu xel daf ko xel daf ko nangu xel nanguwu ko daal attaqué na attaqué na arrêté préfet Guédiawaye euh, mbir mi mu ngi ci yoon nañu bàyyi bay yoon wax génne solution définitive ñun ñëpp ñu tënku ci mais au-delà de ça ñun problème bi euh, li koy régler au-delà parce que ñun ñoo musa moom marché marché bi ñoo ko moom de toute façon il n'est pas marché bi di rek mais li ñuy wax mooy autorités yi muy président de la république muy gouvernement bi Euh, ci li nga xam ne nii ñu ngi koy càmbar ci acte trois décentralisation ak cohérence mise en cohérence bi ñu dellu siwaat ñu delloo Guédiawaye au delà de marché bu bees quartier yi nga xam ne nii ñàkkoon nañ ko mais loolu moo décret présidentiel moo koy def mais je pense que problème yu mel nii yëpp am na Sénégal ñu wax euh, ci politique ak mbind mi ci list électorale yi dem fa la ca gaaya lan fa nemeeku nag mooy mbind ma yéex na trop commission ya daanaka dañuy perte heure yu bëri ngir rek bind ay doomu aadama département boobu nag foofu ma nga nekk ci département Dagana ñoom waa gaaya nag fi mu toll nii daanaka ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama rek fa bindoogum ñu ànd ci ak sun correspondant yi nekk ca région bu Sédhiou di Ousseynou Diop Habib Seck bu fekkee ni ci dëkku taax yi bindu mi ci wàllu carte yi foo dem day bari nit lool fii ci dëkk yi nga xamante ni dëkku kaw yi la mbindu mi dafa xaw a tàggatémbe ci commune bu Gaaya salle bi ñu dugg foofee benn commission moo fa ne rang amu fa ñore wàllu commission bi taxaw di xaarandi ñi nga xamante ni ñooy bindu si. ñu ngi ci ñetti ak juróom juróom-ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar. moo ngi depuis ba ñu tàmbalee léegi. ngir nit ñi dem bindu ji ndaw yi nga xamante ñoo nekk ci yenn ci ay parti ñooy dem ak ñi nga xamante ne ay responsable lañu di sensibiliser seeni ay morom. depuis deux mois nag ñoo ngi si inscription yi si ñoo ngi sensibiliser nit ñi si si liste électorale yi boobu ñoo ngi tollagum actuellement ci trois trois trois mille et quelques inscrits donc loolu yëpp suñu taxawaay la ak suñu fulla ak suñu fayda. avec suñu ay. doole yi lu mu tuuti tuuti ñoo ngi ànd ak moom di transporter ñi di leen indi pour ñu inscrire. bu fekkoon du élection sa message bi dina jàll te changement dina am xam nga président motewul fépp ay ndaw la yor rek ndaw yi ñooy dem fu ne lii xew lépp ci suuf mënu ko yëg mais bu neexee yàlla kàddu yi dina jàll prés euh, élection ou pas élection. yëpp a ci yem du tere dañuy liggéey élection bi rek taxul dañu jóg pour liggéey. fii de nag joxoñ nañu baaraamu tuuma ñenn ñi nga xamante ne ay kilifa lañ jàpp ni wàllu inscription bi ñoom seen i bopp dugaluñu ci seen i loxo. amuñu benn responsable bu ñuy jàppale ñi nga xam ne au niveau local au niveau de la commune de jël benn dërëm jox ko loolu ñun ñu ñoo cotisé di jëli militant yi di leen inscrire kon donc ñuy wax ñuy wax ni Macky Sall tey à Gaye ñun ñoo fi nekk di politique di massifier le parti. de transporter les militants. Donc, depuis, on a constaté depuis que le maire ñëw ci parti bi dafa am une léthargie endémique mooy division am na nekkatuñu benn. mbind mi mi ngi wéy ngir askan yu mën a am carte d'identité biométrique dëkku taax yi nag rang bi amu fi file ñi yore wàllu commission yi dañuy toog lu yàgg ngir mën a gis sax benn nit bu ñu bind. ngir xeex ñàkk kaaraange gi nemmeeku ci réew mi fan yi yëpp dem ca conseil des ministres njiitu réew Macky Sall daal dina sàkku ci ministre de l' intérieur ak kin dénk forces armées ñu def seen kéemtulaay kàttan ba rek kaaraange gi wéy ci biir réew mi ba tax na am na plan boo xamante ni nas nañ ko jëm rek ci loolu ministre de l' intérieur daal di koy feddali démb ba ni amal journée internationale protection civile fële ca Tëngéej dal di na daal di jëlaat limb bu takku ci ay alkaati yi tax ci dolli tamit surveillance bi dinañ ci gën a wagga rawatina ñi nga xamante ni dañuy dawal ay ñaari ru di ay moto yu ni mel ñoom caay-caay gi ci ñoom la gën a takkoo buñ sukkandikoo ci ministre bi àdduna ci micro suñ correspondant Ousseynou Thiam ak Bira Diagne situation sécurité bi métti na lool ñun ñii ñëpp xam nañu ko mais def nañ ay jumtukaay yu bëri def nañ ci ay jéego yu mag a mag bu ñu ñëwee 2012 ba léegi police recruté nañu lu ëpp 3700 policiers. or ba léegi ñun xalaat nañu ne doyul autorisé nañu ñu am encore recrutement lu ëpp junni ak juróomi téeméeri policier ñu yokk si lim bi ñu fi am commissariat ak poste police bu mu nekk war na am au moins au moins ñaari oto yi nga xam dinañu war a def patrouille guddi ak bëccëg si seen ressort territorial fan yi ñu fi jàll dégg ngeen maanaam agression yi mais surtout rey bakkan yu ñu si am yu nga xam ne moom métti nañu ñëpp lool waaye lu ñu si gën yombal liggéey bi mooy justement caméra de surveillance bi ñëpp dëkk bi parce que c'est à partir de caméra yooyu la ñu jotagum identifier band yi ñu mun leen ñoom ñëpp téye gis nañu presque agression yu fi amagum depuis le début de l'année ba léegi xale yi nga xam ne ñoo war moto yi ñoo koy jot loolu nag moom dañu koy dakkal incha allahu rabi communauté bi nga xamee amul immatriculation dinañu ko arrêté waaye diñu ko yem xalaat nañu ko à partir de certaines heures aussi mobilette warul circuler si dëkk ci noonu ñu dalal ci sunu gan di Alioune Seck moom moo jiite rek euh, direction bi ñu jënk planification ak suivi évaluation ca agence de sécurité de proximité di ASP yi ñu sampoon leen fii ak léegi mat na ay at ngir rek mbiram kaaraange googu sëñ bi sekk ginnaaw bi ñu la gis nga li de l'intérieur wax président wax na ko démb ci conseil de ministres yéen ci seen wàll lan ngeen mën a dugal seen loxo ngir kaaraange gi ñu mën ko saxal dàkk fii ci Sénégal. Euh, jërëjëf Chérif euh, maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi euh, di leen jottali aussi nuyu directeur général ak bu ASP yëpp di ko jottali seen téléspectateurs yi te di leen sargal aussi ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ci ci ci Sénégal. Mm-hmm. dëgg la fan yi moom sécurité daanaka moom mooy ordre du jour bi ñëpp a ngi ciy wax parce que lii am moom kenn mënu koo nangu ay faat bakkan nit loolu kenn mënu koo nangu. waaye li ministre de l'intérieur wax léegi wane na ni gouvernement Sénégal mu ngi jël ay mesures pour xeex insécurité boobu. Mhm. ñun ci suñu wàll ASP ñun ci prévention lañu nekk parce que baax na ñu xam ni sécurité publique gendarmerie ak police ñoo ko moom. Mhm. ñoom ñoo koy doxal. ñun dañuy ñëw di leen ci jàppale di ngeen gis gendarmerie ñuy ànd ak ay ASP di ngeen gis policiers yi ñuy ànd ak ay ASP ñun dañ leen di jàppale ci lool mais ñun suñu wàll dëgg mooy prévention prévention boobu nag ñu ngi koy doxal ci wàllu sécurité de proximité dégg nga léegi yow wax nga fi ni plan national de prévention mhm. et de lutte contre la délinquance bokku na ci li nga xam ni président sas nañu ko mais li gën a am solo te ñu koy waaj a def fi ñu toll dëgg la ñoo ngi dégg agression fii meurtre fële mais ñun dañoo bëgg a yaatal mbir mi mhm. ba taxawal benn saytu ñu tubaab tuddee ko étude nationale sur la délinquance au Sénégal ñoo ngi koy waajal ak université de Dakar à travers l'école supérieure d'économie d'économie appliquée ak agence nationale de la démographie de la statistique et de la démographie parce que am mbir aussi pour nga man koo xeex il faut nga xam nan la tëddee. Mhm. il faut li tubaab bi wax les tenants et les aboutissants cartographier ko mooy tax nga mën a taxawal. ay stratégie est-ce que est-ce que justement prévention boobu efficace na. parce que quand même yéen bi ngeen fi nekkee ak léegi léegi tey mat ñeenti at. ngeen ne yéen a ngi ci pré waajte prévention maanaam ngeen gàttandu mbir ba ñu yegg si fi wante mbir mi moom daanaka bëyee na mbuus parce que ñi ngi ci mbir mi jéggi na dayoo est-ce que kon am na efficacité si seen. plan de prévention ñun suñu prévention am na efficacité. parce que li ma la wax am na résultat bi kon waaw waaw am na résultat parce que loolu boo ko nattee. ci fi ñuy yóbbu ASP yi fa ngay mën a xamee ni am na résultat wala amul résultat mais soo ñu nattee ci sécurité publique doo ñu jox résultat parce que ñun sécurité publique du suñu wàll suñu wàll mooy prévention sécurité de proximité dëgg la am na ay instruments yu ñu déployé te atum ren moo nañ ko def mooy les contrats locaux de sécurité yi ñu war a liggéey ak collectivités locale yi. Mm-hmm. taxawal aussi ay comité de prévention et de lutte contre la délinquance. xam nga ñu ngi naan léegi. il faut population yi collaborer ak police. il faut population yi collaborer ak gendarmerie mënul ñàkk. bu dee bëgg nañu def xeex bu am moona ci li njombe yi am léegi mais loolu il faut ñu organiser ko dans des cadres de concertation pour nit ñi mën a toog policiers yi toog li ñu tuddee acteurs no policiers et policiers ñu waxtaan pour mën a xool nan lañu saytoo mbir mi. loolu nag dinañ ci jëm ci atum ren taxawal ay comités départementaux mais aussi taxawal ay plans yoo nga xam ni ci collectivité territoriale yi lañ koy doxal. loolu laa ci man a wax. Mhm. beneen bi mooy justement wax nañ ko sànq ak borom scooter yi ak yu ni mel yéen gis nañ leen lu ci bëri ci circulation la leen di gis ak édifice public yi. est-ce que ci collaboration ba ak plan de recrutement yi ngeen nekk ngir yokk li mu ASP yi mën nañoo xaar xëy na ngeen gunge force de défense et de sécurité justement ci xeex délinquance boobu. ci lañ dëkk loolu mooy suñu permission bu njëkk boo gisee recrutement bi ASP njëkk def. soo ko defee ñetti xaaj benn xaaj bi ci police ak gendarmerie lañ nekk beneen bi nekk administration territoriale beneen bi nekk ci collectivité locale yi foofu boo ñu fa natee ñoom mën nañ laa wax lan mooy njëriñu ASP recrutement bii di ñëw it kenn mënugu mënuma laa wax ni kii mooy dem police wala kii mooy dem gendarmerie waaye du ñu wàcc boobu sas mooy jàppale leen muy police ak gendarmerie parce que ñun suñu mission mooy assister leen jàppale leen parce que ñoom ñooy responsable sécurité publique. mais dinañ taxaw ci formation bi parce que gis na ni caay saay-saay léegi modus operandi yi ni def maanaam ni ni jëfee doy na waar trop ngànnaay yi ñu yore dix neuf yooyu loolu dafa laaj aussi ñu ni jàkkaarlook am formation bu tax ñu mën a aar askan wi ba song yooyu ñu mën ko déjouer est-ce que tàggat gi aussi yéen a ngi ciy bàyyi xel loolu. dëgg la li nga wax noonu lu am solo la Chérif question bu pertinente ba tax na ren ñii ñuy seen formation non seulement mooy gën a bugg gudd parce que dina digal juróom fukki fan waaye daf ci am benn partie bu njëkk boo xam ni formation militaire lay doon ni ñuy bënnee nit ñi pour formation militaire. mu mhm. ñuy wax prise en ñoom dinañ def dix à quinze jours ferme. Mhm. avec des instructeurs militaires gendarmes et policiers. Mhm. te si seen biir formation aussi ren dugal nañ ci self défense parce que ñun du ñor nganaay ñun on a des armes non létales c'est-à-dire ASP yi mënuñoo yor fital ay armes non létales la ñuy yor. Mhm. armes non létales yooyu aussi muy baton boobu ñu yor lu ne mën nañ ko cee def. am nañu ay taser am nañu leneen donc loolu dañ ciy def suñu kemtulaay kàttan ren ba nga xam ne ñoom seen assistance. du doon assistance yaafus mais assistance bu active lay doon. active la justement ci ngànnaay boobu lañ des ndax. directeur bi di docteur Xaali Ñaa mhm. waxoon nag fii coow li bëri. Mhm. après déggaatu leen maanaam écarté wuñu woon xëy na benn bis ñu ñu ñu armé ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci agence de sécurité de proximité yi idée boobu fun ci tool. wala bon de toute façon loolu moom nekkul à l'ordre jour ci agence bi. li nekk à l'ordre du jour ñu ci agence bi nan la ñu mën a aaree suñu ASP yi nga xam ni ñu ngi ci terrain bi parce que ñi nga xam ne war nañ mën a yondoo ngàndaay kooku peut-être mooy ñu nekk police wala ñu nekk gendarmerie kooku xëy na possibilité bu mën a am la ultérieurement mais wax dëgg yàlla li ñu soxal fi toll nii mooy ñi nga xam ni comme ñoom du ñu yor arme nan leen mën a utiliser ay armes non létales ñu mën koo utiliser ba nga xam ne dinañ mën a euh, maîtriser neutraliser def ko ñaaw te fi jàpp na am nañ fi mm-hmm. boo demee cité Mixa xale yi yoruñu woon fital yoruñu ñu te jàpp nañ fa ay ngànnaay ñoo xam ne ñoo ngànnaay woon parce que formation bu am solo lañ leen jox jox leen ay jumtukaay. Mhm. loolu daal lañ bëgg a gën a renforcer ren ci formation bi muy formation militaire bi mais maniement aussi des armes non létales muy bâton bi muy taser bi. Mhm. beneen bi rek xëy na bala ñoo jeexal ñu ñëw quand même ci recrutement bi fan yi yëpp yéen a koy waajal fan fan ngeen toll ak ñaata agent ngeen soxla. waaw recrutement bi ñoo ngi ci euh, commencé nañ ko léegi mu matu weer ak lu ko ëpp. Euh, euh, dépôt euh, dossier yi jeex na bërki démb ci Sénégal yëpp di remercier tous les jeunes du Sénégal parce que en vérité ASP dafa dekkal espoir dekkal yaakaar on a reçu vingt cinq mille demandes muy ñaar fukki demande ñaar fukki junni ak juróom ci fukk ci ñeent fukki département yi ak juróom ñu war cee tànn ñetti junni. donc loolu day wone lan loolu day wone ni ASP am na njariñ ci jeunesse bi. non seulement pour ñu liggéeyal seen réew ci wàllu sécurité mais aussi pour ñu man faa ñëw jàng liggéey ba pare am yaakaar ci seen ëllëg. donc président de la république vision bi mu jël ci ASP moi je dirais C'est l'une des idées, si ce n'est pas l'idée la plus révolutionnaire de son magistère parce que innovation osé la te def na ay résultats. mais payoor yi xëy na comme réew moo xamante ni xale yi bari nan amul liggéey xëy na ñàkk pexe moo tax est-ce que yéen a ngi xalaat tamit gën a yokk payoor gi parce que tamit il faut ñu leen di motiver parce que mbiram sécurité dafa am solo. dëgg la loolu nga wax dëgg la bu ñu sañoon tey li ñuy am mu ëpp ko mais bu ñu fàtte ni ñun cr wuñu ay emploi au sens classique du dañuy jël xale yi. ñu servir ñu am engagement civique comme que doon dem bango ah militaire wala ñu nekk service civique national. Mhm. ñu indi leen ci ñun. non seulement boo ñëwee ci ñun di nga valoriser parce que ku daan xëy suba ba ngoon toog sa taatu kër di naan ataaya nga ñëw ñu joxal la uniforme nga war a service sa réew. ñu placé la wala police wala gendarmerie wala collectivité locale nga am liggéey di xëy di wàcc am as tuut loolu nag bu ko salaire Chérif pécule la. Mhm. pécule bi man nekkoon naa volontaire des Nations Unies aw ma j'avais ce qu'on appelait les indemnités de subsistance c'était pas un salaire classique fii aussi ñii li ñu am mooy pécule pécule boobu nag yemul foofu parce que pécule bi dafa ànd ak couverture maladie muy ASP bi muy soxnaam muy ay doomam ku ci nekk boo feebaree ñoo lay faj am nañu sax ba am lu fonctionnaire amul parce que fonctionnaire bu faj bu feebaree dem hôpital def consultation buñ ko bindalee garab moom moo koy jëndali boppam ASP bu ñu ko bindalee garab agence bi moo koy jël bu dee téeméer bu nekk juróom-ñetti fukk yi agence bi moo ko gàddu ñu teg ci beneen bi ñu ciy teg mooy ASP bi ci boppam bu duggee day tànn métier bu ko neex. am nañ juróom-ñaar fukki métier ak ñaar yoo nga xam ni. Mhm. dañ koo signé ak ministère de la formation professionnelle. ku ci nekk fa nga neex ñu tàggat la ca. bu sa ñeenti at jeexee ñu gunge la ba nga am li ñuy wax un emploi décent. déet jeexagul parce que des na aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ndakaaru agence bi lijjanti na liggéey ak partenariat ak Dakar Dem Dikk ñu leen di remercier au passage. ba ñu assurer la gratuité du transport public à tous les ASP yi nekk biir région de Dakar. jërëjëf donc loolu lu am solo la. lu am solo la ñu ngi lay sant di la gërëm Alioune Seck ni moom mooy directeur planification ak suivi évaluation ci agence sécurité de proximité rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ñu dem ca Ndar Géej foofu nag étudiants yi jàngee ca université Gaston Berger lu nañ euh, dogalu kilifa yi ngir rek daal di yokk seen manin ak tamit euh, seen dundin fële ca daara ja wante nag ñi ngi sàkku ci kilifa yi du ñu gën a góorgóorlu jëm. ci dëkkuwaay yi ne ni xewloo ca restaurant yi wante tamit mbiram paj ma ñu gën caa farlu ñu déglu Cheikh Ndigal Bey moom moo yor seen kàddu ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. fii ni wax ak yéen nii am na ay avancées yoo xam ne am na ci secteur d'activité yëpp comme restauration bi jamono yi am na ay matériels yu ndaw comme ay kudd ak ay taas yoo xam ne manqué woon na waaye fi mu ne nii réglé nañ ko euh, tamit matériels yu yàqu woon instant bi may wax ak yéen réglé nañ ko booy xool aussi ci wàllum euh, CM bi maanaam hôpital bi am na ay avancées yu ci am am na benn commande médicament bu buñ indi boo xam ni mi ngi toll ci 3 millions ak lu teg ak am na beneen boo xam ne aussi mi ngi ñëwaat mi ngi toll ci million ak teg leen am na ay avancé yoo xam ne mi ngi am ci université bi waaye nag euh, loolu warul tax ñu ni que lépp mi ngi dox am na ay problèmes yoo xam ni fi ñuy wax ak yéen dafa dafa des muy lekk bi nga xam ne moom la ñu lekk ci restaurant yi dañ ko war a améliorer di ko diversifier ndax mënuñ accepter restaurant bi togg lii beneen restaurant bi togg lu mel noonu donc nañ ñu jox ay plat yu baax comme ñoom autorité plat yi ni lekk bu loolu jàllee aussi euh, am na yeneen problème parce que booy xool étudiants yi dañuy feebar lu bëri mais dañuy manqué euh, prise en charge bi nga xam ne moo ci war c'est-à-dire disponibilité personnel médica médical yi euh, di accueillir étudiants yi di leen jàppale ci ni mu waree tamit booy xool instant bi dañu am ay problème mu coupure ndox ndox bi day day day day taxaw ci lu bëri te loolu noonu wax dëgg yàlla jàppalewul étudiants yi ndax ay jamono dañu daan xëy sël rek la ñuy def ñu dellusiwaat ci mbiram yoon ak procès ancien premier ministre Abdoul mbay jëm rek ci mbiram soxnaam su njëkk moom nag dañ ko doon toppee rek mbiram fooy et usage de faux ba tax na tey mu doon dem jàkkaarloo ak àttekat bi mbir ma nag dañ ko dàq ba ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñu mal ngir may avocat yi ñu def liñ seen plaidoirie yi Abdoul mbay nag àdduna ne dina tax ñu xam fii dëgg gi féete àttekat bi tere na ko mu génn réew mi laataa ñuy egg foofu ñu déglu ko ci micro Alassane Ba Babacar Camara mbir mi nag mi ngi bëgg a yàgg waaye ba tey jii may wax ak yéen kenn wanuma document boo xam ne kayit boo xam ne mën nañu jàpp ne faux ñaareel ba kenn waxuma itam li nga xam ne lii moom la soxna si wax ba ne dafa am lu mu moom lu mu moomal boppam ma bëgg ko foqati ci ci loxo daanaka bi may doyen Sall Samba di doyen des juges d'instruction Sall Samba di auditionné booba plainte sax amul duñu jëkki-jëkki rek daal di inculpé te amul koo xam ne kii nee na am na ku ma tooñ Abdoul Mbaye tooñ na ma waaye ci biir bi ma dégloo ba pare ci la ñuy soog a indi partie civile loolu xaw a doy waar sama avocat yi bi ñu ko yëgee liñ ci teg mooy bind doyen Sall Samba ne ko waaw ndegem partie civile amutoon parti civile am na maanaam nee nañu nee na Abdoul Mbaye ko tooñ waaw na ngeen dégluwaat Abdoul Mbaye mu mën a xam li nga xam ne li moom la tooñ soxna si ci moom la tooñ soxna si doyen ba bañ ba tey ba sànq xawma ma li nga xam ne lii moom lañ may tuumaal ci mu jëm ci escroquerie am na ñu may topp dinañ lépp dina mujjee feeñ lépp dina mujje feeñ jotagul ñu wax ko waaye bés dina ñëw mu leer te ci kaw ak njort naa leen kay waaye nañ xaar rek nañ xaar rek bu bu kenn yàkkamti ñu fàttali ni procès bi renvoyé nañ ko ba ñaar fukki fan ci weeru avril ngir may rek wàll yëpp ñaar ñooñu ñu mën a def seen plaidoirie yi fële ca Diourbel njiital CNTS FC di Cheikh Diop amal na fa tukki nemmeeku ngir waajal élection de représentativité syndicale yi am ci weeru avril profito ji nag daje ak liggéeykatu Sonacos si nekk ci jafe-jafe nee na nag campagne njaayum gerte mi ni mu doxee leen neexu ko te tamit la ko gën a métti mooy gerte gi jël di jaay bitim réew te Diop ci micro euh, kii di euh, Talla Samb ak Mouhamed Jo Diop. campagne agricole bi ren wax dëgg yàlla sooxe na demul ni mu war a demee fii ci sunu or ak ci ulie yëpp ñu ñaan état bi mu gën a organiser campagne bi waxuñu ne ne réew mi vivre en si loolu mënatul nekk waaye bala ngay laax lekk. bala ngay laax jaay nga laax lekk ñun dañ jàpp ne war nañ organiser campagne bi ba nga xam ne besoin yi nga xam ne moom la huiliers yi am fii ci réew mi besoin yooyu ñu satisfaire ko bu ñu ko satisfaire ba pare nag maanaam li ci des ñu jaay ku bëgg si suñu kenn waaye nag ñun jàpp nañ ne États-Unis sax day protéger ay industrie locale am kon ñun war nañu taxaw ci protéger suñu industrie locale bu ñu leen protéger wu li ñu jox leen cër bu nga xam ne ci campagne agricole bi dinañ mën a fonctionner mais ñu organiser campagne bi surtout pour que suñ partenaires yooyu nga xam ne ñooy producteurs yi béykat yi gis ci tamit seen bopp. mbiram mbay la ñu des ba léegi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yëngatu ci mbayum mboq mi fële ca Tambacounda ak Kédougou amaloon na ndaje ca gouvernance ba ngir rek xool li nga xamante ni moom mooy meññeef gi fi mu toll wante tamit njima euh, li leen gën a metti nag mooy ñàkkum financement bi wante tamit internet yi nga xamante ni moo jëm ci semence yi ñu gën leen cee dimbali ñu ànd ci ak Moussa Oumar Gueye image yi Amadou Diédhiou mbayu mboq fii ci Sénégal wërngal këpp dafa jànkuwanteel lenn ci ay tolof tolof ba tax ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbayu mboq diwaanu Tambacounda Kédougou daal di amal benn ndaje mu waxtaan xool ana yan pexe la ñuy def ba kuréel yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ñu daal di ko gën a mën a yoonal waaye itim ba tey ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy waa nguur ak partenaires yi leen di jàppale ci wàllu xarala ci wàllu koppar ak yeneen yu ni mel ñu gën a mën a nag dàbbali li nga xam ne ñu ngi ko doon def ndax si biir li ñuy sént ci wàllu mbayu mboq nekk li nga xam ni dafay ñoŋ fii ci bët penku Sénégal Guèye moom mooy président national collège ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbayum mboq fii ci Sénégal. mi ngi liggéey su filière mboq parce luy bëgg-bëggam mooy que béykatu mboq yépp nekk su benn kuréel. gab bi nga xamee ne tey jii moom la Sénégal di jéggaane ñu euh, ñëw am ñu maîtrise de l'eau mooy taw bi. xamuñu naka lay tëddee balaa muy ji dafa war a defar suuf si te loolu des na dafa laaj xaalis te organisation yi euh, dañuy def crédit mais balaa ñu suy jot day jafe parce que tey jii soo demee léegi sàq yi ñoo ngi commencé rës ci at mi ñu génn atum 2016 daal di woon nañu nag bay luy toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ci wàllum hectare ci Kédougou ak junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn hectare ci diwaanu Tambacounda loolu lépp nag ci wàllub xayma ak tënk am nañ ci luy toll ci ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti tonnes ci wàllum mboq. ca Kolda moom nawet ba taxu ko neex dund ga xaw na métti ci yenn ci njaboot yi ba tax na rek am na ñu jóg ngir dimbali soxna yi jox leen ay bëy ak yu ni mel ngir rek ñu mën ca yëngatu ci wàllu càmm gi su ko defee di leen mën a am koppar yoo xamante ne di leen mën a dimbale ñu mën a dund ci sutura Abdoulaye Diallo. résultat yu bon yu nawet bu atum ren ji tax nañu ba wàllu dund askan wi ci kaw gi daal di wàññeeku lool rawatina bu tuut tànk yi ay xale yi ci yenn gox daanaka seeni wàllu lekk demeewul ni mu waree mu mel ni ca dëkk kaw yu commune bu Médina Chérif moo waral seeni municipalité mi lëkkaloo ak USAID yaa jende moo baaxee jigéen bu ne ñaari xar yu boromam di yar ngir ñu mën a toppatoo seeni ay doom. dañu am programme euh, maanaam jënd xar jox ko jigéen yi pour ñu mën a leen euh, multiplier ba ñu jóge ci ndóol mais tamit maa ngi lancé benn appel. ci ministère de l'élevage pour ñu ñëw pour ñu ñëw fii ci commune Medina Chérif ñu accompagner ñu ci liggéey bi pour ñu liggéey bi ñu mun ko pérenniser. léegi jigéen yi xar yi ñu jënd ku nekk di nga si jot ñaar waaye soo ko jotee moom a goo ko de da koy téye yar ko toppatoo ko ba xar yi am doom nga jël ñaar jox ko beneen jigéen bi nga xam ne sa naataangoo kooku tamit dafi noonu loolu day créer système solidarité objectif bi mooy jigéen bi am lu mu am si loxoom nga xam ne Euh, dina ko permettre euh, mu euh, ndóol jóge si kër gi. te si wàllu sécurité alimentaire nutrition tamit xam nañ ko du dugub ak ceeb rek la yàpp ci la meew ci la moo tax soo seetee aviculture familiale bi maanaam yarum ginaar sax dañ koy def ak jigéen yi. koppar yi ñu jagleel wàllu njëndum xar yooyu mu ngi toll ci juróom million te ñi ko yelool ñoo yaakaar ne jëf ji ni mel mun na leen indil yokkute ci wàllu am-am ak ci wàllu dund. dañoo bëgg lool tey ndaxte dañoo am loo xam ne fooguñu ko woon xar yi dinañu jëme kanam ci fànn yu bëri mun naa leen jaay sax ma faj samay soxla. ngir ñëpp man si njëriñu ñi yoragum xar yi dañu leen di yor ba ñu am doom ñu daal di ko jox keneen ku leen di yoraat. football lañ koy tàmbalee ak euh, gone yi seen at yees ñaar fukk ñoom nag ñu ngay jongante fële ci Coupe d'Afrique bay am ca Zambie senegal nag dina football ñaareelu match moom ak ak ak Afrique du Sud tey lay am fële ca Zambie euh, di fàttali ni nag match boobu dafa am solo trop ndax euh, faaw rek ñu am ci résultat bu baax buñ bëggee yaakaar qualifié demi-finale di fàttali ni it match bu njëkk ba Sénégal dafa témboo woon ak Soudan ku nekk benn bal nga dugaloon Afrique du moom dafa duma woon moom Cameroun rek euh, du muy métti ci match bu njëkk ba dinañ ci dellusiwaat ak suñ xibaar di si suñ xibaaru ngoon yi wax leen fu résultat yi toll gone yooyu nag Joseph Koto moom mooy seen entraîneur. bu dee ci wàllu beach soccer Sénégal xam na kan lay daje ci ak ca coupe du monde bay amee fële ca Bahamas ci atum 2017 bi ñu nekk ñeenti équipe lan ca poule ba Sénégal nar a daje ak Équateur Bahamas may organiser compétition yi wante tamit ak waa Suisse entraîneur équipe nationale bi nag moom am na yaakaar ni daal gone yi mën nañoo am taxawaay bu am solo fële ca coupe du monde beach soccer bay am fële ca diwaan boobu ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diawo Thierno Laurent Mendy Sénégal nekkat ci poule pays organisateur di pour boo xamee ni entraîneur national bi gis ni gaynde yi mën nañ ci génn. Sénégal moom dafa mën ni dañ ko baaxawoo muy footballax ay euh, équipe yi nga xam ñooy organisé parce que bu ñu fàttale ko ñun sunu 2008 dañ ci wax France te France moo organisé woon 2011 ñu bokk ak Italie poule Italie moo organisé woon 2015 bi xam ne moom lañ mujjee woon dem dañ bokk ak Portugal. nga xam ne ne aussi moom moo ko organisé woon Suisse bi nga xamante ñoom xam nañ ne équipe bu mag la si beach soccer tey jii boo xoolee ñoom ñi ngi si juróomi équipe yi nga xam ñoo a mag ñoom tey sax ñoom dañuy pour jël coupe du monde si loolu la ñuy liggéey donc bu dul loolu aussi am na Équateur équipe boo xamante ne ñun xamuñu ko muy oowee naan adversaire boo xamante ne ñun daal xamuñu ko mais ak jumtukaay yi am léegi dinañ si jafandu gaynde yi nag seen objectif leer muy passé premier tour bi ñun war nañ nag jëm ay pas te ñun bi ñu xoolee ñun mas nañ dem quart de finale ñaari yoon si sanu àdduna ñoom dañ ñu dem demi finale mais demi final boobu nag il faut ñu xam ne ne nag ñun sanu ñaari coupe du monde yu mujjee dañ laajte premier tour donc forcément man na doon peut-être euh, si lu xam ne dañ koy étaler si ñaari coupe du monde. daanaka ñaari weer dong des ci compétition bi programme bi euh, leer na nañ pour gaynde yu Sénégal yi. Euh, weeru amee juróomi fan ñu jóge fi dem Maroc pour dem see wax marok ñaari match xarito loolu dina si baax parce que xale yi aussi am na ñu bees ñoo xam ne intégré nañ groupe bi ñu man leen xoolaale bëgg nañ see wax équipe yu mel nii équipe yu mag yi comme ay Tahiti ay Portugal wala yooyu donc d'ailleurs sax Sita moom ñu ngi déggante moom mu ngi foofu mu ngi wax ne Suisse comme ñoo bokk poule donc boobu moom baare nan ko dañuy contenté su Tahiti Tahiti ñu ngi wax ak ñoom daal tey ti ni mu waxee ñoom pare nañ pour ñëw fii pour ñu jouer ñoom. ci fàttali nag coupe du monde bi ci kër bi dinañu ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi ba ci juróom-ñaari fan ci weeru mai fële ca Bahamas. ponk bu mujj ci xibaar yi li gën a fees ci yenn yi la ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf plan de guerre bu toj la kilifay réew mi bëgg a teg ci réew mi ngir jële fi ñàkko karange ubbi leen l'observateur ministre intérieur moo nekk ci tegi pexe ngir jële insécurité ci réew mi ca pexe yooyee journal bi nañu bokk na ci tegi sémi ci réew mi ngir ñuy saytu dëkk bi police bu ca nekk ñu jox la ñaari wata ñuy def ay patrouille guddeeg bëccëg defi vidéo surveillance ci ndakaaru ak li ko wër moto yeeg scooter yi ñu sàkkal leen waxtu wu ñuy daw jël ay motard ñuy daw ci réew mi saa ñu xëyee di rëbb ay délinquant le soleil nañu boo xam ne ak déggoo da am ku ca nekk dugal ca loxom président Macky Sall bëgg ngir xeex ak délinquants yi le quotidien nañu président de la république jël na yat wi ngir defante ak defkati ñaawteef yi le témoigné nañu li ñu naan dëkkub dóore fa yoo koy tas noonee le président Macky Sall bëgg a doxe teg na plan de riposte plan national de lutte contre la délinquance ministre des forces armées ak ministre intérieur journal bi nañu président jox na ay instruction yu fer vox populi mel ne ko naan ñu bu Mbàkke mu di clinique urgence cardio jël fa ñaari télé écran plat ak téeméeri junni ak ñaar fukk junni doomi aadama faatu nañu ci réew mi daaw ci catastrophe Sud Quotidien nañu xibaar la bu ñu nangoo ci waa protection civile ci lim boobee mu di doomu aadama yi 651 di juróom-benni téeméer ak juróom fukk ak benn yi ci accident la faatu ci tali ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom yi dañoo lapp fukk yi ak juróom-ñaar ay taaxa daanu ci seen kaw des ci bakkan yi des ci réew mi ci Mali foro maam Cheikh Gueye di moodu moodu bi ñu fitaloon bërki démb ca Kër Mbay Fall les éco xëy nañu xamal li ko jotale woon ak wayu yi ko fetal ñetti sàmba boy la yu duggoon ca quartier kamb ga ca Kër Mbay Fall ay boori une heure yor seeni fetal ñëw fekk waa ji maam Cheikh Gueye muy gaare otom ñu bëgg a nangu oto ba waaja bañ ci la ñu ko dóoree ñaari bali fetal maam Cheikh Gueye ab moodu moodu la bu nekkoon ca Italie ñeen fukki at ci la toll Ibrahima Gueye mooy turam dëgg-dëgg ñii naan ko maam Cheikh ña ca des naan ko Lamp Gueye semaine bii di ñëw ca la waroon a delluwaat Italie journal bi nañu fekk nañu fa benn duy ak mbaxana mu bula la tribune xëy ñu moom it nit li histoire mam Cheikh Gueye mi ñu faat ak fetal bàyyi na ci ginnaaw soxna ak ñaari doom yu ndaw kenn ku góor ak ku jigéen siyaaka ndong bu la tribune ni ñu ci journal bi bi ko sàmba bo yu songe fital ko dañu ko bàyyi foofee muy sukkuraat benn waay bu ñu naan diba moo ko jël dugal ko ci watam yóbbu ko urgence bu hôpitalu Pikine ba mu yeggee ñu jàllale ko réanimation docteur yi def ci seen kemtalaay kàttan waaye fa ay fanam yam l'observateur nañu mbir mi li ci gën diw tiis li ci gën diw naqar moo di maam Cheikh Gueye bi ñu koy fital muy faatu booba jabar jaa ngi taxaw lépp ci kanamam la xewe maam Cheikh dafa yóbboon yaayam mu ñibbi isin benn tali ba mu dellusee ba yegg ca këram nga ca kaax ca kàmb kër Mbay Fall extension di gaare ca la séenée benn oto bu taxaw ci ginnaawam faaree di tàkk ndekki oto ba dafa càng fa mu nekk ab Peugeot 407 la ñetti waxambaane génnee ca ñëw na maam Cheikh jox ñu sa oto waa ji bañ ñu nekk ca di xeex ak moom bagaañ ko doyu leen ñu dóor koy balu fetal tegal ko ci dem seen yoon ca la jabar ja génnee fa mu làqatu woon yuuxu wallu nit ñi ne kër kër ne këpp yaayam moom maam Cheikh Gueye wax waa l'observateur li mu mujjee waxante ak doomam nee na maam Cheikh Gueye dana woon bala may dellu Italie dinaa fi ñëw baalu si la àq ndax sonal naa la lool soxna si ne ba ma wàccee ba ma dugg sama kër mu wan ma ginnaaw ku ne ma woon bisub keroog ngeen mujjee gisante duma ko gëm li neexut a gëm mi ngi ci l'observateur ndogala gaaw te mën a bette Cheikh Kanté ma nga ca kaso ba ubbi leen l'observateur page onze fa la xibaar ba nekk Cheikh Kanté mi bokkut ak docteur Cheikh Kanté directeur général bu port waa ji Serigne Mountakha Lo la tudd dëkk ca quartier guy mbind ga ca Touba am soxna ak ñetti doom waa ju bari tappale te ñeme ay lëy xóor da doon wër di wax naan moom mooy docteur Cheikh Kanté journal bi nañu bari na ay kilifa diine yu nekk ci réew mi waa ji dóor na leen maxtu ba xolam sedd moom waa joojee doon Cheikh Kanté sant gendarmerie dóor na ko maxtu Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fi ne nii yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média leen ñaanal bëccëgu jàmm